di tàmbali nag sunu programme bi ñoo amal ñoo fas yéene amal tey fii ashram Angle Mousse programme bi nag nii lay tëddee balaa ñoo def dara dara dañuy jàng kaamilu alquraanul karim yéene ci nag way jiitu yi ñëpp di leen ñaanal yàlla yërmande akub jéggal waaye nag li jiitu ci yéene gi nag mooy sant yàlla ndax bu la yàlla may nga nelaw ak jàmm yow ak jàmm santal yàlla waaye doyul mu may la nga fekkee lu mel nii nga xamante ne daaw alhamdulilah defal nañ ko ren tamit macha allah taala ñu ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla yoo ko def ñu fas yéene nag jàng kaamil bi di ci ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm di ci ñaanal Afrique yàlla def fi waaye di ci ñaanal monde entier. fu jullit nekk rek yàlla na yàlla defal la jàmm gannaaw bañ ci yeneen nag ñuy jiitu ñëpp te jéggal leen yàlla jéggal yërëm leen di ci ñaanal nag waa gox bi mag ñi nga xamante ne doon ànd liggéey bi toll mel nii ndeysaan ñu doon jàppale seen doole daal di daan teew ñun bokk ñu jotaay bi ñii wéri di moo leen jàpp moo tax ñu toog seen kër ñii nag génn dañoo génnaate nag yàlla leen yàlla yërëm te yërëm te jéggal leen ñii wéri di nag yàlla may leen wér ba ñu ñëwaat si jotaay yu mel nii ala kulli xaal xale yaa ngi nii macha allah ñu ngi woo nag parents d'élèves yëpp ñu génn ndax programme bi tàmbali na su ko defee bu ñu jàngee kaamil bi rek xam ngeen ajuma dafa xat ajuma dafa xat lool waaye sant yàlla bu ñu jàngee kaamil dañuy défilé ji kon nag ñu ngi ibbi kaamil bi ñu ñaan yàlla defal ñu sutura ak xéewal ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim gën ci alhamdulilah rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 bismillahi arrahmani arrahimi alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الحمد لله ñu ngi wax assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di am mbégte mu rëy ci xéewal gi nu yàlla mayaat di wax ñu ñëpp ñu boo wax alhamdulilah rabbil ko de ñu wax alhamdulilah rabbil alamin wa iz ta'azanna rabbakum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid waxtu wu ngeen yége xéewal gi yàlla moo leen ko defal yàlla ne bu ngeen santee rek ma dolli ne ku weddi xéewal googu nag ba doo sant yàlla bu ëllëgee mu duma la duma yu métti wala iyaas billah yéen ci al musal ñu ngi nuyu imaam yi ci mboolem yépp nuyu parents d'élèves bi nekk yépp waaye di nuyu ndongo daara yii nga xam ni ñoo doon jàng kaamil bi ak 114 suuratul Fatiha 114 suuratu Yaasin lépp def ko jaamu yàlla ak hadiyatu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ñu fas yéene xat mu quran bi kenn ku ne fa nga ne nga jàng fatiha salaatu ale bu waay mën ñetti suur ixlaas def ko hadiyatu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yéene ci mbooleem jullit bu ne ci biir suuf ak bu ne ci kaw suuf ñu ni bokkaloon di jaamu yàlla ci jadaay bi ñu tawat ñaan yàlla yëkkati leen ñoom ñëpp gis naa ñu tawat sax soxla nu ñëw yal yàlla saafara leen ñu jiitu ñaan yàlla jéggal nu jéggal leen waaye nag ñu ñaanal ancien élève yi nga xam ni ko xool tànt bii ni mu mel nga xam ni wuute naa gi daan am at mu jot ñoom la lépp ñoom la ñu ànd ak seen wajur yu baax yi yal na yàlla yokk seen wetu yàggal leen yàlla barke seen dund di ñaan rek ñépp ñu noppi toog bu kenn jóg suuf su xale yu jigéen ñi ñépp wax amin góor ñi nag noppi noonu wax dëgg yàlla góor ñi noppi noonu wax dëgg yàlla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 allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar walillahi alhamdu bismillahi arrahmani arrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar walillahi alhamdu bismillahi arrahmani arrahim qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعبد الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وشرابها وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم آمين وبلغ الرسول النبي المصطفى الكريم wa naxnu ala ma qaala rabbuna wa mawlaana min ash-shaahidiin rabbuna wa mawlaana min ash-shaahidiin rabbuna wa mawlaana min ash-shaahidiin allahumma arhamna bil-qur'aani l-kariim allahumma arhamna bil-qur'aani l-kariim اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما دربت فيه من المسؤولات وكفر بتلاوة عنا السيئات innaka mujibu daawaat innaka mujibu daawaat innaka mujibu daawaat allahumma taqabbal minna xatma alquran allahumma taqabbal minna xatma alquran allahumma taqabbal minna xatma alquran وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سوء النسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تاويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند التلاوة أو كسل أو زغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إغوال بغير بيان فاكتب منا على التمام والكمال والمهزة من كل حال وارزقنا فضل من قرأه ماديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تخدمنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ولكن ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسق ميزاننا بالحسنات وسبل أقدامنا على الصراط واسكنا وذا الجنان warzuqnaa jiwaara sayidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam wa akrimnaa bi liqaaika yaa dayyaanu yaa dayyaanu yaa dayyaan allahumma ajcal alqur'aana alcaziima rabiica qulubina wa jalaa axzaanina wa dahaaba humumina wa qaa'idana wa saaqana ilaa jannati naciim اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة وإصباحنا في الظلمة ودليلنا في الخيرة ومنقذنا في الفتنة واعصمنا به من زيع الأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحق بالزيادة آمالنا واقضم العافية علونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصب سيال عفك على ذنوبنا ومن علينا بتر عيوبنا allahuma jal taqwaaka zaadana wa thiqa bika suxrana wa atiqaadana wa amin min aljuuci walxawfi bilaadana wasaaila bilamsina sanaqaat ya rab ya rabbal alamin allahuma jal taqwaaka zaadana wa thiqa bika suxrana wa atiqaadana wa amin min aljuuci walxawfi bilaadana wasaaila bilamsina sanaqaat ya rab ya rabbal alamin allahuma jal taqwaaka zaadana وتقلبك سقرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا والسائر بلاد المسلمين سنغال يا رب يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه للروح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا مصطفى محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب اللهم عمرنا يا رب عمرا طويلا مباركا بالصحة والسلامة والسلامة والعافية والعافية والاستقامة على الكتاب والسنة والموت على حسن الخاتمة والفوز بالنعيم في الدارين والنجاة مع والنار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسلام عليهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسلام عليهم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 رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أيد الإسلام والمسلمين ودم الشرك والمشركين اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا مباركا طيبا اللهم إننا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من كبار العلماء الأعلام العاملين ومن دعاء الأولياء المحسين المحسين من أولياء المحبوبين بفضلك وجودك وخيرك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين ودم الشرك والمشركين اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا مباركا طيبا اللهم إننا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من كبار العلماء الأعلام العاملين wa min diwaan awliyaa al-muhsin wa awliyaa al-mahbuubin bi fadlika wa juudika yaa arhamar raahimiin ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل ولا تخزنا القيامة إنك لا تخلف الميعاد yow yàlla ñu ngi lay ñaan ci barkal Alxuraan ci bés bu màgg bi de mu yowmul jumaa képp koo xam teew ne fii ak ko amul yéene teew yàlla nga ko jéggal bàkkaaram yàlla mu ngay ñaan ci barke alquran ci bés bu màgg bii képp koo xam ni teew na fii ak soxla bu boppam yàlla nga ko xettali yàlla mu ngay ñaan ci barke alquran ci bés bu màgg bii képp ku ak jàngoro ko ko sonal yàlla nga ko teggil ñu ngi lay ñaan ci barke alquran ci bés bu màgg bii képp koo xam ni teew na fi ak jafe-jafe àddina yàlla nga ko xettali yàlla ñu ngay ñaan ci barke ajjuma ji ci barke alxuwaan yi suñu senegaal gii yàlla nga fi gën a dolli jàmm te tànn na lu yi yu jub yu am yërmande bàyyi xel yàlla yàlla ñu ngay ñaan ci barke ajjuma bii mbooleem koo xam ne sa njaboot mu ngi ci daar ji bés bii bu ñëwee ngi yittewoo ko lool ak ancien élève yi yittewoo ko lool liñ ci sonn yëpp yàlla na nga leen def seen téere jëf ak seen rakk yii nga xam ñu leen wut taxawu ko yàlla na leen xetteel yi yàlla ñu ngi lay ñaan ci barke alquran tawxiid tv ca kaw ca kanam yàlla na ko téyeel sa bopp yow mi nga xameen loo ca kaw ca kanam tawxiid tv muy boo xam ni mi ngi taxaw alquran mi ngi taxaw jullit mi ngi liggéeyal Sénégal yàlla ñu ngi ñaan ci barke àjjuma ji mbooleem jullit fu nu ne ci xat-xat yal na leen xettali yow yàlla ñu ngi ñaan ci barke ajuma ji fu jullit ne ci àddina bi yal na nga benn ñoom ñëpp ñu nangu la yu roy sa jàmba sa ndaw la ñu di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla ñu ngi ñaan yal na ñu may ñu fekke at yu bëree bëri te nga sàmmal na suñuy cër luñ ci jëf luñ ci wax muy loo gërëm ci barke Alxuraan اللهم يا من أظهر الجميل وستر الحبيب ولم يباخل بالجليل ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا صل المغفرة اللهم يا باطل برحمتك ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصف ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدأ بالنعم قبل استحقاقها يا رب يا رب يا رب ويا سيدي ويا مولاي ويا غاد رغبتي نسألك أن لا تلقتنا بالدنيا ولا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم allahuma salli ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abil abdani wa shifaiha wa min absari wa diyaiha wa qul arwahi wa sharabiha wa ala alihi haqqa qadrihi wa dana azim allahuma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunjina biha min jami'i ilahwal wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات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 alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu di leen ziara waa Tawhid TV encore une fois ñu ngi ànd ak ñoom ci beneen euh, programme bi nga xamante nag mooy programme phare euh, conférence bi ala kulli xaal donc euh, mooy défilé bi défilé bi nag mbokk yi ñu ngi ciy ànd ak waa Tawhid TV dama dama bëgg nag incha allah taala ak ñoom ñu ànd seetaan ak ñoom nañu fas yéene défilé. sa yaram dina dow lool sax boo gisee xale li ñuy doxee di bàkku yàlla di tudd yàlla waaye li gën a daw yaram tamit boo gisee parents d'élèves li ñuy génnee ala kulli xaal ñëpp génn ànd ak mbégte kontaan lool. loolu nag luy taaral daara ji la waaye luy taaral lislaam la luy taaral Sénégal la ndax au moins gis nañ ni seen i doom ñu ngi ko confier ñu ngi jéem a def dara ci xale yi te loolu rek am solo su ko defee xale dañuy ràññeeku lool wane waa daar yi eh, wane waa taaru daara ji. lu ci gën a impressionnant nag mooy ñi nga xamante ne ñooy anciens élèves yi dëkk ci gox-goxaan yi dañ ci gis seen bopp ndax daan nañ def ñu mel nii ma mi wax yéen nii eh, daan def naa ko ba tàyyi ala kulli xaal col yi ma col boo gisee ñu sol ko boo gisee col bi nii rek anciens moo koy sol ñoom tamit dañuy wane seen partition ci ci mbir bi ala kulli xaal xale yaa ngi noonu ngi naaw ñoom ngeen di seen noonu oto yaa ngi noonu tamit rang incha allahu taala ñu ngi leen dugal nag benn par benn bu ñu dugalee parce que xale yi ci a néew kàttan dañuy dugal xam nga ne uh, doy waar ba pare euh, asamaan si lu mel tamit neexut moo tax dañ koy wàññi sax nag défilé euh, lu gàtt rek wane ne bés bi jot na. waa immortaliser ko te ala kulli xaal bu ñu paree nag dañuy ñëwaat si daara ji. ñëwaat ci tente bi doo ko def troisième étape nag loolu rek démonstration des enfants lay doon jàng alxuraan xale yi wanewaat seen bopp ba àjjuma ba ba ba waxtu waxtu julli bi jot. 13 heures rek bu jotee rek. ñu libéré boo mook jullit yi ñu jum jullit yi nag bu ñu jullit yi après jeexul de dañuy ñëwaat di def nag xasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir xasbala nga xam ne ñaan bu nga xamante ne suñu mag ñi baax yi ñoo ko tëgg ñu ñaan bu am solo bëri yiw ku xam xasbunallahu nga xamante ne yàlla nga wax ci alquran alladina qaala lahum annaasu inna annaasa qad jamau lakum faxshahum fa daaruhum imaana wa qaalu xasbunallahu wa ni'mal wakil bal bu rëy la bu dis lool boo koy wax malaaka yi ñu ngi ànd ak yu di ko wax boo koy wax sunu borom subhaanahu wa taala sax mën naa jaayu boo koy wax yonent bi sallallahu wa sallam ma nga tee fa jotaay bi nga koy waxee kon loolu ëpp naa la tey moo yu bëri waxtu boobu dañuy ñëw ndeysaan bokk ak ñun ak sëriñ bi ñuy tudd yàlla di ko bàkk di ko ñaan julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ noppee nag daal di dem nag ci conférence bi nag incha allah taala kon nii nii nii édition bi nag mi ngi ci quarante quarante ci unième édition quarante ans soo gisee mu am une année de déclage quarante et a ak quarante ans dafa am année boo xamante ne deux fois la nga def moo waral ñu def quarante quarante et unième édition mais affaire bi événement bi événement bi entre en question am na quarante ans kon sant yàlla te quarante ans nee nit bu ko amee rek ah dugg na ci mu ngi dugg na dugg na ci àddina nag yàlla nañu yàlla sàmmal te aar ñu te kattanal ñu ba li ñuy def incha allahu taala ñu def ko ci jàmm ak salaam ñu ngi gërëm nag. di sant waa Tawhid TV ndax incha allah taala ñoom tey ñun ñoo yéen ak ñoom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. installé wu gaaw vite fait installé wu gaaw dugal bi ci bi lay dugg lan lay dugg. ila samaa jaba katif sudur amaam. yéen ñii dugg leen digg bi ñu solul may t-shirt yi dugg digg bi. miizaan. ñu solul nekk si anglais. dor. amaam. miizaan. dor. alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatulah bi ñu ngi noonu di mbokki jullit yi ñu ngi noonu di dox eh, di dëgmal nag défilé bi fa tabarakallahu di tudd yàlla di dox ndànk ndax xam ngeen ni tudd yàlla qiyaaman wa qu'uudan lañ wax waaw position boo ko defee rek baax na moo xam da nga taxaw moo tax moo xam dangay dox kon ala kulli xaal ñuy tudd yàlla yàlla nag baat yëpp baax na lool nag baat si ko tudd baax na lool waaye bu ko ci gënal mooy laa ilaha illallah laa ilaha illallah mooy sang tur yàlla yi laa ilaha illallah mooy tur yàlla bi nga xamante ne yàlla kese kese kese la boo ne laa dax nga lépp ko indi yàlla da ngay indi moo tax ñu naan amul benn buur bu ñuy jaamu ku dul yàlla jaamu ko di njariñ nag ko jaamu di loraange moom la xay di tudd nii ala kulli xaal dégg ngeen noonu waaw kay bisimilah. ren nag sunu défilé bi dafa dafa dafa xaw a dafa xaw a doy waar gis ngeen ndox baa ngi noonu euh, fii taxi bi di génnee moo tax te am euh, ci aada nag traditionnellement fi ne nan daar jàdd waaye nag defuñu ko dañuy jubal waaw dañuy jubal euh, ba ci kanam. bu ñu demee nag ba côté Nimzaat dañuy jàdd foofu noonu nag am na parents d'élèves yi ñu ngi fa gox yëpp nekk fii ci ci ci ci yu wër daara yi parents d'élèves ngi fa waaye eh, bu ñu mënoon ku ci neex ci kër sa bundu ko dañ fay taxaw saafoonte ak yow nuyu la eh, nga dégg kàddu yàlla waaye nag conditions yi ñoo ko matewul ñoo ko mayewul waaw moo tax ñu dox nànk rek allah kulli xaal di ñëw gis nga sëriñ baa ngi nii. di dox moom tamit ne sax nekk ci organisation bi ndax ren moom wax dëgg yàlla suñu défilé bi dafa xaw a dafa xaw a métti waaye nag sant yàlla waaye moom dañ koy utal oto na ko doxal waaye du dox <laughs> ala kulli xaal nee na tuyaab xale yi dañ li ñuy def ci coono moo waral ala kulli ñoom tamit ñuy góorgóorlu ci loolee waaw. bis bi dafa dafa di bis bu am solo tombeek bis bu bare njëriñ bare ngëneel mu nekk loo xamante ne nii ay ngëneel yu daje la macha allah. yal na yàlla subhaanahu wa taala def gënee ci nekk yal na bu mu nu umb yal na yàlla subhaanahu wa boo boo jógee ndar di ñëw pour bis mel nii yàlla ngay yëg sa yaram. mbégte ak cawarte ak kontaante ak yëg ni yaa ngi jóge ci bërëb bu sell jëm ci bërëb bu sell bërëb boo xam ni euh, dara nekku ci dara amul dara caaxaan lépp yàlla subhaanahu wa taala la waaye lépp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la di ci kontaan lool. moment bii xale di défilé di tudd yàlla euh, lan lay def ci yow. lu fort loo xamante ni mënoo ko amee feneen fudul fii waaw tudd yàlla bi ñuy tudd yàlla mënoo ko amee feneen fudul fii ndax ay xale yu ndaw yu tuuti ndax boo seetloo ñun ñoo daan tudd yàlla ànd ak xale yi tey xale yi tudd yàlla ñu ànd ak ñoom macha allah mu nekk loo xamante ni fàttaliku yu rëy la yu am solo fàttaliku yu am solo la macha allah. jërëjëf jazakumullahu xeeran Mouhamed eh, Bachir eh, Samb jazakumullahu xeeran témoignage am na solo lool moom tamit dafay nekk kenn ci daara ji. Euh, yor daara ni ñun ala kulli xaal waaye day tëj daaraam ñëw xam naa bu amul lu ko wéral sax day ne xale yëpp indi fi ñëw fi waaye gi nga dégg nga ko ci ay kàddoom daanaka fu mu jógee ak fu mu jëm benn la ci moom te it loolu la yàlla dogal ci moom kon nag yàlla na yàlla nangul ñu ñu doxal ni ki nànk rek pour mën a dem incha allah taala bisimilah. ñu ngi nekk di dugg dugg Nimzaat moom laa wax lii koñ bi ñu génn léegi moo moo jël corniche bi corniche bi. boo jàddee yaa ngi dugg ci côté HLM yi HLM yi bi ci mujj mooy Nimzaat waaw ren wax naa ne suñu itinéraire dafa dafa changé ndax euh, contexte bi moo ko mayewul nawet beek ak travaux yi nga xam ne dañuy def waaye sant yàlla alxuraan moo noonu alxuraan moo toll noonu waaye dañuy delloo waat njukkal xaaj Chérif Touré bi sàmm nga xam ne bisam bii bis bu rëy la da ci jàngale lu bare. waaye moom gisu ci boppam boo waxee mu ne bisu xale yi la boo waxee mu a bisu alxuraan la di ko ci ñaanal yàlla yàlla guddal fanam barke sax am na ko ala kulli xaal bis ku xool lu ñu koy organiser ak lu ñu koy defee aujourd'hui am nañ tey jii ay ay référence ñun tey jii nekk nañ référence ñu bëri ñu ngi roy ci ñun du màggal bis bi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 ñu koy wax xaaj Mouhamed Samb moom bis bi da ko ñor lool da koy fekk Arabie Saoudi mu bàyyi lépp li muy def daal di ñëw ngir bis bi ànd ak ñun nekk ci lépp ànd ak ñun ci annonce yi ànd ak ñun ci yóbbu lettre yi ànd ak ñun ci woote yi ala xaal kon nag moom dañ koy jox oto sax da ko dugal waaye dana damay dox ànd ak xale yi tudd yàlla ala moom daari da ko neex moom sëriñ bi da ko neex moom alquraanul karim da ko neex ñu wax ko rek muy waxee témoignage am si bis bi ala kulli xaal bismillah mbokk jullit yi gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu képp koo xam ni way juru élèves yi nekk fii ci madrasatul abral lil wildaanil axyaar ci bis bii nga xam ni dafa nekk bis bu màgg tombeek yow mu màgg sayidul ayyaam mu yowmul jumaa ci bis bi nga xam ni xale yi ñoo dellu si waat tey di leen bégal ci bisu alquranul karim ñu ciy waxtaan ci mbirum diine islaam di leen fàttali kan mooy yàlla ñu leen di woon ak ci bis bi di sàkku yàlla mi nga xam ni dara taw ko subhaanahu wa taala mu nangul nu ko nangul leen ko képp ku fi ñëw yàlla na yàlla fay yiw ñëw bii bi ngay ñëw sa dikk mu nekk luy far bàkkaar mu booy dem muy luy bind bàkkaar booy dem muy far bàkkaar ñu ngi leen di ñaanal nag yàlla yal yàlla may ñu teewe ko ci at mu jot wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf mbokk yi woote baa ngoog woo na parents d'élèves yi woo na julit yi woo ki dëkkandoo waaye wax na tamit lan mooy solo bis bi wax na tamit lan la bis bi di jëriñ doomu aadama yi kulli xaal julit nag saari'u ila magfirati min rabbikum saabiqu ila magfirati min rabbikum yàlla moom bu la rek fa firru ilallahi xëttal dawal foo toll na nga daw daal ñëw ndax yiw yombut de yiw yombut sa jamono dafa naqari nit lu ko mooy loo yàlla lu yomb la waaye lu ko mooy lu bari la te am na tuyaaba yoo xamante ne yusufu na sayyiaat yàlla ci yàlla boole tuyaaba bu mel ni kon nag ala kulli xaal ñu ngi taxa sëriñ bi taxaw sëriñ bi Cheikh Tall bi Samb alhaaj Cheikh Tall bi Samb tey programme bi xat na lool de bisimilah. salaamaaleykum wa yow alhamdulilah ba alamin ñu sant yàlla mi nu mayaat ñu fekkee ren ni ñu fekke woon daaw mu tombeeg bés su màgg mu yemul jumaa di ñaanal képp koo xam rek bés bi yow bég nga ci yàlla yàlla dool le mbégte ñu def seen alal ñëpp tabarkallah muy sangu bés yi ñun daal bég nañu ba xam lu la ñuy wax waaye daal ñu ngi ñaan ñun ñëpp rawatina ancien élèves yi nga xam ni at mu jot lépp ñoo koy taxawee ndax ñu jaar ci daal ji bëri na waaye am na ñoo xam ni wax dëgg yàlla ñoom bàyyi nañ xel daara ji am ñoo xam nag ancien élève lañu pendre élève lañu waaye bu bés ñëwee amatuñu jàmm mooy lan ne bés bi dox na lépp baax alquran di jolli ca kaw di gërëm nag cameraman euh, euh, télévision Tawhid TV seen taxawaay ci daare ji waaye seen taxawaay ci réew mi di ñaanal directeur ba ba ci ki gën a tuuti ñu ko waxee woon ci euh, avant première bi ci plateau bi yëpp di ñaanal mboolem ñi jóge ci région yi ñëw ñu jóge dëkk ak dëkk ñëw ñu jóge Arabie ñi ñëw jóge bitim réew ñëw yëpp ñu ngi ñaanal waa ji ñaanal dëkkandoo yi ndax kat lii mi ngi bëgg yàgg di ñaanal ñi képp ko am daal bés bi safoo nga ko yan yàlla may ñu fekk ay at yu bare képp ku fi teew yan yàlla fekk aajo asalaamaaleykum wa barakaatuhu léeg-léeg mooy ndongo daara yi nga xamante ne dañoo jaaroon ci daara ji ndax daara ji nag macha allah taala yàgg na lool am na ñoo xamante ne alhamdulilah yàlla def na leen tey ay kilifa ba euh, bis bi ñoom ñoo ko taxawal seen bopp ñoo jël seeni i alal def ko ci ñoo jël lu ñu am ak lu ñu amul yëpp def ko ci ngir rek yëf yi daal di sotteeg jàmm ak salaam kon nag sëñ taal moom ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal yàlla di ko ñaan yàlla na yàlla sàmm ko te aar ko taxaw ko ñu ngi nii nag di waati ci tante bi ala kulli xaal ndax tey waxtu daf ñoo xaj. daf ñoo xoj loo <laughs> ñi nga ànd ak yéen bi léegi xool leen jigéen ñi macha allah seen sañse ñuy sañse ñoom wane ne ne jigéen jullit nii lay mel ala kulli xaal jigéen jullit nii lay mel ci mbedd bi jigéen jullit nii lay mel ci ah, marché bi jigéen jullit nii lay mel ci liggéey kaayam jigéen jullit nii lay mel ci këram ala kulli xaal sol lu jot euh, fexe ba mën xam diinam fexe ba xam ay farataam fexe ba xam li ko war waaw daar ji noonu lay def daara ji ala kulli xaal du yem ci jàngale la waaye day yem day day continuer di la yar waaw bëri na jigéen yoo xamante ne tey jii ñii seen waa kër xam ngeen ndakaaru lu mel duñ leen yar yaru yaru yaru jigéen waaye ala kulli xaal bu ñu jëlee daara ji rek sëriñ bi dina ñu commencé liggéey loo ñii mën na leen tey yàlla ni bare ñii mën na leen tey yàlla ni menace ñii leen tey yàlla ni raxas douche bi si liggéey ba mun yooyu yëpp ala kulli xaal lu su ko defee ñoo nekk nii ñii ñëpp ci daara ji lañ nekk ñii ñu ngi sol seen i col ñii ñu ngi sol seen i col yu marron waaye li ci gën a yéeme mooy yëre yu weex ñu sol yëre yu weex ñu sol dafa adapté ak bis bi ndax ajjuma koo xam yoonu saa sallam la ci moom mu naa sol leen yëre yu weex waaye ajjuma ku waaye dem tey bisu tey bi sunu conférence bi thème bi mooy la paix la paix mooy jàmm te fu Sénégal di traversé monde di ko traversé jàmm mun cee ma jàmm rek nañu wër ala kulli haal ñu amee jàmm rek ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp noppal ko bu ñu amee jàmm rek dëkk bi daal di naata naataange daal di am bu ñu amee jàmm xéewal daal am moo tax ñu sol seen yére yu weex wala ne tey ala kulli haal jàmm rek moo moo mën na boole doomu aadama yi jàmm la ku ci nekk di gis boppam ala kulli haal waaw jàmm si ngay tax talee julli jàmm si ngay talee jaamu yàlla yàlla jàmm si ngay tax si ngay tax teraanga kon mu ngi noonu jigéen yaa ngi noonu ndeysaan leen ginnaaw ala kulli xaal di tudd yàlla di ko. baale yàq de waaw gis ngeen ne défilé bi nii lay doxee waaye rek ñu ngi jégalu bu baax nag sunu dëkkandoo yi di jégalu bu baax tamit mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo bokk tali bi ñun dañoo ñëw sax jël seen cër waaye ñoom desaan dañ ci ànd ak mbégte ndax ko romb ne ko ñu ngi jégalu mën na la alhamdulilah jërëjëf lii kay tubaarkàlla ndax yàlla mel noonu tudd ko kuy tudd yàlla kuy dox ngir yàlla kooku dañ ko war a jàppale kooku dañ ko war a dimbali. taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwaan tali bii ñu nekk nag mooy tali Angle Mousse bi fi mu doon nii dañuy dem jëm ci tente bi ala kulli xaal koñ bi ci yëpp ci Angle Mousse bokk ndeysaan dëkkandoo yi ci ëpp ñu ngi daara duñu xaar ndax nañ leen xamal ne daal vraiment leen sunu défilé bi duñu ci def défilé boo xamante ne daal défilé bu kii parce que yoon bi mayewu ko tali tooy na ndax mu xaw naa doy waar. waaye nag fu ñu romb rek ndeysaan nit ñi jël seen i portable di di di di kii di di di ngir rek bànneexu ci bis boobu kon nag ñu bàyyi leen xale yi incha allah taala. alhamdulilah mbokk yi gis ngeen yëpp rek ndeysaan ci daar yi parents d'élèves yi mu jaral leen ndeysaan ñu bàyyi seen seen seen liggéey jël seen oto def ko essance essence ak essance du mu méttee nu mu chéré waaye alxuraan jaral na leen ko oto yi nga gis ñi seen ñii. ñoom ñëpp ndeysaan dañoo ànd ak ñun ci bis bi ngir bëggeek ñun dox di doon nànk accompagner xale yi wane ne ñoom tamit si bis nañ bokk waaw waxuñu ñoom kenn du taxaw ne jox leen njëgu essence kenn du taxaw ne déedéet sama olo dafa yàqu déedéet waaye dañ koy def ak fierte dañ koy def ak passion dañ koy def ak bëggee waaw te yëpp macha allah am ñoo ñi ci ëpp nag dañuy xam nga mag ñi mun ñoo dox dox bu yàgg su ko defee ndeysaan Euh, daara ji lool ala kulli xaal jazakumullah xeeran ak jërëjëf jërëjëf alhamdulilah jërëjëf kolobaan ñu ngi dugg ñu ngi génn angal mos nag dugg kolobaan alors kolobaan nag euh, ala kulli xaal wax naa leen ko léegi ku ko wax rek xel yëpp dem ci jaay ku ko wax xel dem ci xel yëpp dem ci fëgg jaay waaw mu doon nag gox bu xaw waxaat tuuti waaye ñoom ñuy comprendre ndeysaan ñoom ñuy comprendre waaw ñoom ñoom ñoom macha allah euh, Colobane ñoom dañuy comprendre ndax euh, lu mu xar xar xar ah da gis ne alhamdulilah mbokk yi ñu ngi dugg Colobane euh, xaw na xat tuuti nag buñ nee Colobane nag xel yëpp nekk ci jaay buñ nee Colobane xel yëpp nekk ci jënd buñ nee Colobane xel yëpp nekk ci fëgg jaay waaye suñu dëkkandoo nañ ñu baax. bëgg alxuraan ndax place yi nga gis nii xale eh, nit ñi toog fi di fi jaay ñi ci ëpp. la ba léegi ñu ngi kolobaan sunu magu daara sunu sëriñ Cheikh Alhaji Ousmane Diop maam Ousmane Diop. alalam lu mu am indi ko ci daara yi fu mu xam fu mu ne fu mu dem lu mu rëy rëy rëy balaa moo tudd dara daar la ñu ko tudd kon nag Hadj Ousmane Diop. kàddu gaal googu. ñu ngi niw ñëpp mbokk di di ziar ñëpp waa Tawhid TV di di niw sunu mbokk mi di Cheikh Diaw imam Cheikh jaw nga xam ne ñun tey moo ñu fi teewal moo ñu représenté fii ci daara ji ñu yàgg bokk di def lii di niw nag sunu sëriñ nga xam ne lépp moom la ginnaaw way juri muy Cheikh Talibou Ya sàmm ndax lu ñu xam ci diine lu ñu xam ci alxuraan yàlla ci moom la ko jaarale ñu ngi koy sant di ko gërëm fu nu toll cheikh nag imaam cheikh li mu wax ñun ñëpp la waxal fu mu teew ñun ñëpp la teewal ndax ñun ñëpp ay bokk daara lañu ñoo bokk nekk ci daara ji ba tey moo tax man di leen wax ne man duma ancien man élève ancien la waaw di bég na te it di xam ne lii l'islam la défilé bi li tax mu am solo mooy ci la ñëpp xamee daara ji ñu yàgg ko def ay ati ati at ay édition édition ñun ñii ñëpp taxaw fii tey ñoo nekkoon démb ay xale wu trois ans quatre ans di koy def ba tey yàlla dogal suñuy doom ñun mi ngi mi ngi ci lii kon nag sëñ Talla Samb yal na yàlla fay yiw jazakumullahu xayran am na solo macha allah sëñ Cheikh Ousmane macha allah kaddu gi am na solo alhamdulilah ñu ngi leen di sant bu baax di sant yàlla suñu bés bi di bàkk suñu boroom di kañal alquran di wane njëriñu daara lu mu am si Sénégal lu mu am si àdduna ñu leen di ziarat bu baax di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di leen invité si bés bi nag bés bi lii moo nekkoon défilé bi ñu leen si invité nag si bés bi incha allah tey incha allah ren moom thème bi mooy jàmm la paix oustaz Aboubacar Faye mooy mooy def thème bi la paix kon na si ñëpp teew incha allah ku si teew rek di nga fi jëlee dara incha allah di fi xam-xam. kontante bi boo xamante ni day continuer chaque année lii moom biñ ko dalee organiser yàgg na waaw lii moom sant yàlla rek waa sant yàlla rek parce que bi ñu nekk xale nekk tout tànk xam nga nekk nekk primaire xam nga nekk lycée ba dem université ba jàng ba commencé liggéey ba léegi nii ñuy continuer di koy organiser kon defuñu lu dul sant yàlla rek te di sant bu baax Cheikh Daribou Sam mi nga xamante ni. moom moo ñu jàngal alxuraan léegi bu ñu jàngee alxuraan gannaaw bu ñuy taree tari faarixa tari ay saar yëpp suñu xel day dem si sëriñ taali kooku moo dugal si ñun liif ba ta sëy ba alif laam waaw kooku moom dañ koy sant te sant boo xamante ne am na fu mu commencé te amul fu mu yam ñëpp di jël quelques parents d'élèves rek ñu wax ñu nu ñu dundee bis bi bismillah. bis nag mbégte rek lañ ci am ndax loo def ñeent fukk at ak benn ku ne xam ne loolu moom. lu wér la lu dëgër te lu dëggu la ñi ngi sant njiitu daara bi muy sëriñ Talibe Samb ndax képp koo xam sa doom jaar na fi ci daara ji wax macha allah ci lu neex ndax waxuma yar bi ci koñ bi koñ bi taali joo xam ne bu fu daara ju woon dana ci feeñ ndax li am fii koñ bi ah bari na koñ yoo xam ne wax dëgg yàlla macha allah amuñu lu mel noonu ndax xale yi yem nañ yem goo xam ni doo leen dégg ci loo xam ne lu dul noonu la naka su dul noonu ci moo tax kon ñi ngi sant sëriñ taalibe bu baax ci daar ji ndax lii bu amuloon ci koñ bi moom mënu foon a ñàkk waaw mënu ñàkk koñ bi ñeent fukk at ak benn la lu ko am kenn ku ne xam ne lu wér la lu dëgër la te lu dëgg la te yoonu yàlla rek moo man lii alquraanu karim gi nga xam ne mu ngi ko def ci xale yi yàlla na ko ci yàlla fay ab yoolam ndax al yoru alxuraan kenn mënu koo fay suñu borom rek ko mën a attan moom mi ko digle xam-xam bii mu def ci xale yi def na ko ci am am ñoo xam def na ko seen i wayjur def ko ci seen i doom ah loolu nag macha allah du doon loo xam ne lu woyof la kon ñu ngi koy ak cant lañ ko waral ak ngërëm ñun parents d'élèves yi bég nañ ci kontaan nañ ci ñaan yàlla mu sax wér lu ay téeméeri téeméeri at daara ci nekk incha allah. alhamdulilah mbokk yi ñu ngi taxaw ak parents d'élèves yi ñoom ñu ngi nii ndeysaan macha allah ñoom ñëpp a ànd ci défilé bi. fajar ba léegi ñu ngi ànd ak ñoom ñu ngi leen di bu baax ci bis bi ñoom wane nañu bis bi seen bis la ñu ngi ànd ak taxaw ak seen suñu sëriñ xaaj Chérif Talibé Samb euh, nan ngay wax parents d'élèves yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xanaa santaat yàlla bu baax di gërëm ndeyu daara yi ne nga xam ni tey ñoom ñëpp sancel na alquran ñoom ñëpp sancel na alquran ñëw ngir yàlla démb lan tàmbali te tey dikkul olof wax ni lépp loo jàpp muy dëgg rek jàppal. kon yal na yàlla jàppale leen yal na yàlla barkeel leen di ñaanal mbooleem koo xam nekk bés bi safoo nga ko yal na yàlla seen limal si lépp yal na yàlla barkeel seen njaboot gi bégg nañu yal na yàlla bégg kon nag imaam comme tey ajuma waaw gànjaay moom alhamdulilah loolu maa ngi koy bàyyi imaam Cheikh Diaw incha allah. waaw alhamdulilah kon nag sëñ Tall ñëw mu ñu la yeewee nga dem ci xale yi léegi ñu ngi waxtaan xaajatu sunu yaay sunu wayjur moom la ñuy tuddee Baye Faaru daara ji xaaja Fatou Kiné Kanouté xool leen nii paraay li ñu sol nii macha allah nuroole bi macha allah ku ko gis nga xamante ne ñi yem sax ci solo waaye dañuy sol a sëriñ bi solo seen taali man léeg leen ma kaasa yow ñu ne ma yow bokkoo ci waaye xam nga ni mos macha allah lii nii rafet na lool yal na leen yàlla fay yiw yal na leen yàlla taxaw bëgg alxuraan moo tax ngeen def ko waaye bëgg seen taali tamit moo tax ngeen def ko bëgg seen doom réussir moo tax ngeen def ko kon yàlla bu yaakaar tasi xale yi yal na yàlla barkeel lépp ba xale yi li ngeen namm ci ñoom ngeen am ci lu kawe seen njort loolu yomb na yàlla yàlla mun na ko jub la yàlla bëgg te ku jub rek noppalu fi mu nii li xew ci dëkk bi yëpp alhamdulilah ba dëggoo ci benn kii waaye nag dëkk bi tàng na lool waaye nag yàlla ñu yàlla sàmmal boppam tax euh, sunu yaay nooy wax tey jii ci turu parents yëpp. li may wax si turu parents d'élèves di wax alhamdulilah ba pare. di nuy nag membre yëpp di nuyu parents yëpp di nuy sunu doom yi di sant yàlla nag bu baax a baax a baax ndax foog naa ne ren mooy quarantième édition te boobu ba léegi si kàttanu yàlla ñu ngi teew ndax sama rakk bi nekk France di caat Omar am ñaari jabar tey fii la doon jànge samay doom macha allah ñoom ñëpp fii la ñuy jànge ba pare nañu ku nekk ngay wàcceel sa bopp kaami loolu yëpp sant yàlla sëñ taali nag dañ koy ñaanal bàyyi koog yàlla yàlla moo am fay yal na ko yàlla fay yal na ko alxuraan fay sagal nañu sagal na sunu njaboot ndax sunu doom yaa ngi nii macha allah mënoon nañ fi di taxawaalu mais taali daal dañ koy ñaanal wér ak gudd fan moom ak ñëpp nag di nuyu na parents d'élèves yaay yi yaay yi nag kenn du ñoom yaay yi kenn du ñoom waaw yaay yi kenn du ñoom mu ñuy sant nañ leen sant yaay yi bu baax a baax yaay yi ñooy sonn suñu ñooy sonn ci xale yi si suba ba léegi maa ngi toog koo gis mi nga gàddu doomam indi ko koo gis mi nga bañ leen nuróole ñëpp a jënd ngir taali ak arxuraan kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm Cheikh Diaw yow sa yaay laa maa ngi lay nuyu di la ñaanal di ñaanal sama doomu ndey ja yal na ko yàlla xare àjjana si jërëjëf Seck kontaan nañu waa Angle Mousse ak HLM 6 ñëpp nga nuyoo Cité Port ñëpp nga nuyoo macha allah kon nag euh, xanaa ñu bàyyi suñu yaay de ngeen egg ci yi macha allah yal na leen yàlla fay yiw yal na leen yàlla taxaw euh, waaw euh, ba léegi waa Tawhid TV ñu ngi ànd ak yéen ci daar ji ala kulli xaal parents yaa ngi noonu di dugg ñu bëgg a waxtaan ak yéen ci waxtaan bu gàtt rek ala kulli xaal ci daar ji daara ji léegi entreprise la daara ji usine la daara ji euh, dafay defaraate comme loo waxee mu am loo xamante ne parents d'élèves bi yàgg nañ ñu ko ñaan yàgg nañ ko bëgg waaye yàlla dogal na ko alhamdulilah mooy fu ñu toogee nag nga xamante ne vingt quatre heures sur vingt quatre dañuy nekk xale yi ñu am benn projet boo xamante ne projet internat la projet institut la projet la boo xamante ne ala kulli xaal dañuy jël xale bi euh, prise en charge lay doon pour euh, carrière am bu gàtt jëm koo yar boo leen xoolee ni nekk sama ginnaaw boo leen xoolee xam ngeen euh, lii mooy sunu projet bi nga xamante ne moom lañ bëgg a def gànjaay gànjaay nag mu ngi nekk ca Kaolack ci yoonu Kaolack la nekk parent benn parent di def moo fa yëkkati 1000 mètres carrés may ko sëriñ bi may ko daara ji sëriñ bi amul lu mu ciy def lu dul alxuraan barabu alxuraan karim mm, lancement bi def nañ ko ala kulli xaal ma nga xamante ne ba ñu ko defee parent d'élèves yi ñëpp dañu ko approuvé expliqué nañ leen lan moo koy financé ñaata moo koy financé expliqué leen tamit yan jéego lañ ci expliqué leen yan modalité lañ koy tabaxee am na benn sunu benn bon du ko sañ turam waaye bon volonté boo xamante ne moom jël na en charge tout ce qui est brique kon kooku dañ koy ñaanal yàlla kon xam nga ne ko yëf yi daanaka sotti na ma noppi euh, lii sama ginnaaw moo nekk plan bi de manière très détaillée donc bu ñu xoolee lii yëpp ala kulli xaal da am na nag format fichier électronique. koo xamante ne incha allah ku ñu intéressé rek boo boo ñu contacter rek dina la ko envoyé. dafay am jàkka am ay néeg am ay barabu jàngukaay am espace de loisir boo xamante ne xale bu jàngee ba noppi dina fa mën a nekk féex féex tuuti féex tuuti. formation bi nga xamante ne nag mooy bëgg a defal formation xale bi formation bi original lay doon. Euh, Dakar néew na am na dama ne amul nag am na waaye néew na nga gis daara joo xamante ne dafay am alloué am seenu daa bopp di bind formation bi dañ jëlaat changé dara li ci changé kay may xale bi day nekk ak ñun bu nekk ñun ala xaal ñu koy yar nag di ko jàngal ba mu mokkal alxuraan su ko defee ñu mun ko libéré am nañ yeneen bëgg-bëgg yoo xamante ne dañ fexe ba xale bi lépp lu mu yittewoo ci addinaam moo xam français la moo xam anglais la ñu ko ko ala kulli mais daal ñu ngi ciy woo parents yëpp euh, liggéey boo xamante ne nag euh, jaayante la liggéey toolu yàlla la du yegg mukk de waaye ala kulli xaal bu ñu jógee tabax rek am yéene defar ko rek lay yegg moom te yàlla mais nag parents d'élèves yaa ngi ci cotisé am nañu ay reçu ñu ngi joxe reçu for am na reçu boo xamante ne tarif bi la am na 2000 am na 5000 am na compte compte yi euh, après incha allah taala mos nga moo nekk ci suuf waaye ci réalisateur bi dina ko bind noonu ci suuf nga gis noonu mooy compte yi nga xamante ne loo fa dugal rek incha allah taala bu ñëwee ci banque bi rek dinañ ko mën a jël daal di koy jëbal ñu yor liggéey bi kon nag ñu ci woo parents d'élèves yëpp ku ci mën participer rek. Euh, nga participer nga xamante ne fu nga dugal yaa ngi dugal ci néegu yàlla fu nga dugal yaa ngi koy dugal ci toolu yàlla ah mbokk yi doomu aadama ngay lebal mu lay kali kalloo waaye yàlla ku ko lebal mu fay la te yàlla dafa mën fay man jaa abil hasanati ashru amsaliha yàlla ku ko lebal benn mu fay la téeméer wala mu fay la fukk waaye nag ah, ka alfa ka alfa sanati mimma taudun yàlla ay mbiram suñu xel rek dañ koy jàppee waaye mbiram jéggi na loolu kon nu ngi ci woo jullit yëpp incha allah ku ci am looy contribuer rek ñu su ko defee très rapidement nag ñu jublu tabax bi daal di fay xale yi incha allah taala ak paana bu am nam rek ñu yar sa doom rek dugale fa incha allah in uridu ila islah ma stataat wa ma tawfiqi illa billah ñu ngi dem nag ci programme nag programme conférence bi ak waa Tawhid TV jërëjëf bismillah alal mustafa muhammad mutaqa mutaba muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu